bi mu gaaw na live bi gaaw yéeg na live bi gaaw yéeg mu gaaw tuuti ah maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen bëggee na bi gaaw yéeg hmm? yéeg mu gaaw tuuti gaay ah. maa ngi nuyoo di siyaar ñi ñuy partage sa live bi ñuy partage sa live bi mais loolu lan la yow ah acca gars yi ñu partagé live bi mu gaaw ñu partagé live bi mu gaaw mu ñu partagé live bi mu gaaw na gaaw allez ndànk ndànk rek yéen ñëpp laay jël tey par groupe laay jël par groupe cinq par cinq dix par dix onze par onze mu gaaw tuuti mille cinq cent ñu commencé mille cinq cent ci kaw vingt mille like incha ñu commencé mu gaaw tuuti mille cinq cent ci kaw vingt mille like wuyu ma like bi nan ko partagé ñu tàppate écran bi nanu tàppate écran bi ñu partagé like bi mu gaaw mu gaaw tuuti partagé like bi tàppate écran bi acca mu gaaw na gaaw tuuti gars yi na gaaw tuuti partagé ah tàppate l'écran mille cinq cent ñu commencé 1500 ñu commencé 1500 ci kaw 20000 mu gaaw tuuti 1500 personnes ci kaw 20000 mu gaaw tuuti gars yi aca mu gaaw tuuti mu gaaw tuuti parce que tey awma temps bu bëri allez gars yi ñu partage live bi mu gaaw ñu partage live bi mu gaaw ñu partager live bi mu gaaw ñoom débéri ga e bo na gaaw tuuti na gaaw tuuti vite fait vite fait vite fait vite fait lii laa bëgg réew mi yëngu

sama ustaas bi ana Lisa maa yéen mbaa gaa yéen mën ngeen a tari alxuraan mba mën ngeen tari alxuraan yéen mbaa alxuraan ji yéen a koy respecté yéen ah ana sama ustaas jàng ngeen alxuraan Lisa anamu Lisa envoyé demande Lisa non maa ngi ñëw maa ngi ñëw gars yi ndànk rek doucement doucement piano piano doucement Lisa Lisa Lisa la soxla Lisa Lisa envoyé demande gars yi da ngeen di xaar dugg après ma jël leen benn par benn wala deux par deux dégg ngeen incha allahu rabbi dégg ngeen bu soobee yàlla. <coughs> ah tey duma xaw a soj moom ah soj naa Sall waaw anamu Sall. Lisa waaw non Lisa laa wax Lisa def leen ndànk rek ay jël ma ngir yàlla jël ma s'il te plaît tontu Adamo papa mo toujours suis koko doucement yéen ñëpp lay jël doucement doucement Piano, piano. Piano, piano, s'il te plaît. Doucement. Doucement. def de dàkk <laughs> doucement rek waaw doucement rek incha allah doucement ana tàkko dégg mantaa ko see maa ngi jub sama xel mi de dem na sama xel mi léegi dem na de ana Lisa gars yi restez vous connectés trois minutes trois minutes trois minutes maa ngi ñëwaat ci laay